dugal ci enquête waay nekkatul Casa de Papel wala Casa de Duma la ay ay André ay Jackson. kër la ma jàmbal ay ma jàmbal waay. ma jàmbal daa ma dañ maa la dal. Hmm? lan la jot. enquête bi. enquête ban. Ah, waxoon naa la bu ci bu ko jël di ko taaw yi nga dem si booy Casa de Papel xaw ma lan ñu jàpp la dóor la xam naa ñoo yàq sa yaram bi. mais lan moo tax ngay dem di taaw yi loo xam ne que taaw yi loo ma la ko lii la ci fekk. li ma jëlee enquête bi la enquête bi ma ko jëlee la. Jackson da ngay weeree jàpp quoi bu doon jàppee ma ko. ram ji yow benn boobu ci ginnaaw naa ko bett. waaw garaaw garaaw mais xam nga lan. Mhm. Baye il faut nga ñëw fee parce que Baye nekkatu fa. Mm. comprendre nga. Ah. il faut nga ñëw man dama ñëwoon pour chercher la xool mais ni nga jëlee affaire yi nii. Mm. dafa lay gaañ de. Mm. instant yi toogal ba dal ba nga wér nga ñëw mais tamit boo yàggee du ma arrangé de parce que Baye nekk sama sàll sama sàll wet gi daa mel ni ab berkee la ci nekk di ko yàq. mais enquête bi ma ko bàyyee noonu de après booy xot booy sax ma booy das 37 voilà jërëjëf ma bi de lu ma dugg dama koy yeggali. waaw tëddal tëddal tëddal nga tàllalee ko. ma jàmbal man maa ñëw dem. sa tur bi lañ mujjee changé de jàmb may yat. ma jàmbal lim la waxoon. boo ko defoon tey li li fekk. mais léegi nga ne bàyyi. bàyyi nekkatu ko li fekk nga ma ñëw kon place ba. foo ñëw pour place ba. dinaa ñëw kañ. boo tënee rek xam naa fi ginnaaw suba incha allah. fekk nga foloteewu ba bare. Mm-hmm. après nga ñëw.

mais yàlla baax na xam naa dina tane léegi. ci bàyyi bu rap rap ji commencé rap rap. waaw tonton ma ñambal. ci la de def. amu naa yaa ngi ci jàmm. ça va. naka yi ku lii waa lu si rappeur bi. bàyyi dafa génn. fu mu dem. xaw dafa génn. loolu yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm loo bëggoon. ndam bu saf. yow fii ki mburu la laa doon lekk mais fu mu nii. kilo mburu laay lekk fan yii. Ah. ndax ndambe bu saf. dafa wala wala wala waaw hmm. ah, ñëwal ñu xaalis bi. mais mu ne nii moom yor ma xaalis de. ah doo bàyyi ma dem kër ga. <laughs> non noonu bu fekkoon loolu moo ñu fi daj kon doo ñu fi bàyyi doo ñu fekk. waaye lema ma rek ba dem kër ga. non non loolu moom dëgg yàlla mënul nekk. Hmm. waaw loolu. waaw parce que bu fekkee bàyyi Jackson bi nga fi fekk ñu lay lebal du si man man damay liggéey foofu xam nga keroog fekk naa la fi nga am noonu def ak ma dàq la tey nga ñëwaat fekk ma fi. kooku dam kaa doon may bës rek xam nga ni ndeysaan yaa fi soxna si li ngay wax ni yëpp amul solo bu fekkee da ngay jënd indi xaalis ma jaay bu fekkee jëndoo nga dem. parce que man léegi ma wàcc benn libre moo ma dese. waaye loolu su ma demee gaale jox la. xanaa doo dégg fii amul lu ñuy leble yow xoolal bëgguma sa yii de du ma ñoom Baye ak Jackson de ñi ngay raay ñuy nelaw man soo ma raay xujulaay di la xool. yaa may dégg. yow moom dafa laa doon may bët may ndam ne nag ñoom bàyyi ak jag suñ ñoomoon noddanti ko ci. xaaral ma wàcc su ma toppee su ma toppee ñii. Fane Ndiaye Fatou.